الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لربي خروجي ما دخولي بمنزلي ما قبله ما قد مدى من تسلسلي لو سكريدا بعد أمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim ine ibaadi laysa laka alayhim sultaan wala wu yaxsimuka min anaas ya allah barke borom tubaa bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki diaspora waa biir réew ak bitim réew noo ngi tey tew fii ci sunu jëwriñ sëriñ Afia bu Sall imam mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi nga xam ne mooy daayira muxaddamaatul xidma Eh, gannaaw bu jiitalee ziar bi sëriñ Touba Cheikh Maodul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér eh, mu mel ne jataay bi amaloon nañ ko daaw eh, ci kanamu sëñ Afia bu Sall Imaam fii ci kër gi muy jataayu mbégte boo xam ne kenn ku ne xamoon na fi mu ko tolloon kawe na ba tax ren jii mu sàkk waatoon bu ñu màggalee ba noppi. Euh, jëwriñ ñi nga xam ne ñoo daan ànd di ci liggéey bii ci jumaa ji euh, bu ñu màggalee ba àllarba ja dellu si ñu ñëwaat teewaat fii ci kanamam euh, loolu tag li ko sabab mooy sëñ Aafiya dafay yëkkati kàdduy cant kàdduy ngërëm jaarale ko ci man nag mi nga xam ne yëkkati woon na seen kàddu it joxoon ma ko ma bokk lenn ci daayira bi di ko jàllale ci bitim réew Euh, kenn ku ne xam ne ne kàdd yi sëñ Afia yëkkati woon euh, ginnaaw bi Cheikh mun taxa yëkkatee kàddoom ci jafe-jafe jamono sëñ bu sa mii da ca daa daal di yëkkatiwaat kàddoom ne jamono xat na day waaye maa leen toogal fii ci peggu sëriñ Touba euh, maa ngi fii ci biir ci biir jumaay seexul Khadim ji teewal leen fi nekkal fi ñépp ci jafe-jafe jamono bii nga xam ne wàcc na àdduna bépp. massawu ñëpp ñaanal ñëpp eh, suñ borom delloosiwaat ñëpp ci seen sago yaakaar naa lam ñaanoon yàlla may na ko ko ndax teewaat nañ ci kanamam kon sëñ Yaafiya suñu xel dal na bu baax eh, mu mel ne eh, dañuy gàttal kàddu yi ndax waxtu yi day bëgg a jege ci wàllu gee gi sëriñ Abdoulaat bindoon na mbooleem ñi fi teew man nag maa ngi wax ne maa fi teewal waa diaspora yëpp képp ku aju ci diaspora rek Euh, sunu kàddu gi mel ne ne teg nga ko ci suñu làmmiñ ñu jottalil ko sëñ bu so muy ab siyaar ak it dolliku yaakaar ak sàkkuwaat ñaan ak fas yéene fedd lewaat sunu laxasaay ci liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa teg ci seen loxo di ci sàkku seen ñaan ak sëriñ Afia ñoo ngi ànd ak waa Europe ak Afrique ak Amérique ak Asie yëpp ñu ngi ni toog sëñ Abdou Lahat bindoon na ñëpp ñu fi ñëw ñu jox ko kàddu gi su ko defee mu mën a tudd mboolem jëwriñ ñi fi ñëwoon sëriñ Afia dégg dégg leen ci seen tur ñi fi ñëw ñoo fi teewal mboolem ñi fi ñi ñi ñëwul waaw bisimilah. nasrun min allahi wa fatun qaribun wa basril muminina wa zakilu bi wafta an rabbiliya fat an mubinan la yura li assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki daaira muxaddamatul xidma seen mbokkum taalibe mooy addu ci kàddu gi daam xariloo ci turu fédération daaira Espagne ci njiital Serigne Mbacke njaay mu àndak kilifa yii mu àndal di suñuy jëwriñ muy sëriñ Mor Tambédou mi nga xam ne du fer mukk ci liggéey sëñ Touba feggoog sëriñ Adi Touré mi nga xam ne kenn ku nekk xammee na ko ci liggéeyi sëriñ Touba ak fu fi mën a doon ànd ak sëñ Sidi Ñaŋ mi et nu feggoo ak sunu jëwriñ tamit sëriñ Assane mi nga xam ne boo ko séenee Espagne muy dem bu laajte ci lan la nekk xam ne day liggéey Cheikhul Khadim ci daaira mifta e, ci daay ci xidma waaw ñu nuyoo bu baax ci turu jëwriñ yooyu ñu lim nuyoo bi ñu di ko teg ci loxo sëriñ Afia Bousso imam di ñaan sunu boroom guddal fanam dëgëral taxawaayam te mottali yéeneem te di ko wax ni ko ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax daf ñoo féete foo xam ne ñun dey lot nañ ci féete fa sunu bopp te mooy nekkal nu fi jegeel nu sëñ Touba di ñaanal jàmm ak tawféex rawatina ci at mii nga xamante ne mbas dafa wàcc ñu di ko wax Covid 19 ñëpp jaaxle ci waaye rawatina ñi féete ci diaspora bi waaye dalal na ci sunum xel ci ñaanal nu ci jege Seex Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér ngir mu nuy gën a ñaanal. ba nu mucc ci mbas mi ñu di ko seedeel na ko ñaan yooyu de si na Bousso yal na la yàlla fay ñi bég nag lool ci jotaay bi ñu jotaayoo ak yow ndax awlaayul xaw awlaayul xawm la yasqa jalisuhuma iz yaksibuuna al muridina saadati toog ak yow kat tawféex la sens la ndimbal la te yàlla may nañu ko te da nga nu ko laabire waaye du sunu njàmbaar moo na ko may ñu ciy santaat yàlla bu baax a baax di ñaan nag sunu jëw yi ñu àndal muy sëriñ Asan di liggéeyal seexul xaddim ci mu xaddimatul xid moom it yàlla dëgëral taxawaayam ndax moom dey soññ na ñëpp ci liggéeyu mu xaddimatul xidma ci Touba Espagne te li muy soññ kenn mënu ko ci ndax bu la soññee boo ko xoolee gis ko ci kanam mook sëriñ Mbàkke Njaay sunu riñ ji ñu ànd di soññ mbooleem jëwriñ Espagne yi kon nag xam naa kàddu yi ginnaaw dañuy njëkkanteeg waxtu wi te dañuy ubbil suñu jëwriñ Serigne Adi Touré moo taxoon rek ñuy def ndigal ndax laa taf aloo say an bi xëyri isni fal isnu sartun fi xaboli sahni kon loolu rek moo waroonoon kàddu yi waaye nag du nu tëj te nuyunu Serigne Abdoul Ahad Bouza mii nga xam ne dafay kenn ci ñun dañu fekk Espagne dinu xemmem la liggéey sëñ tubaab bi maa ngi liggéey maa ngi nuyu nag mbokki jànkat yi doon yëkkati xasida yëpp di siyaar mboolem képp ku fi toog di nuyu sëñ Ibrahima Mbaye mii nga xam ne sunu magum taalibe ci Espagne ju njëkk la jëla moo laxasaayu di liggéey sëñ Touba bi te ba tey wàccul kon ñu ngi siyaar waat sëñ Ibrahima Mbaye Diop waaw waaw ñu ngi koy siyaare waat bu baax kon nag kàddu yi xanaa lu ci dëng rek ñu jógal ñu ko ñu ngi siyaare waat ñëpp mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim barakat Seexul Xadim mbokki waa daara ji ñoo ngi yëkkat sunu nuyoo ci fédération bu Touba Espagne nuyoo bi gën a tedd nuyoo bi gën a màgg nuyoo bi gën a jot di ko teg ci loxol sëriñ Afiya bu se mi toog ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp te aju ci daayira Muxaddamatul ma di jël nuyoo bi nekk ci sunu kilifa yi toog muy sunu magi taalibe yi nga xam ne dañoo njëkkoon ci réew ma yàlla dogal ñu liggéey fu liggéey bu mag jaaroon ci yoonu siraatal mustaqim waaye doon liggéeyal seexul xadim ban fekk leen ca ñu yar ñu ci tàggatal ñu ci ba tey ñu ñeme cee jaar ba lépp lu ñu sëriñ bi jox ñu am fitu engagé ko kon sëñ Afé ñoo ngi lay seedeel sunu ngërëm ak sunuy cant ci sunu mag ñi toog bu ci jiitalee ku mel ne bàyyi moo tëmbee du mee rek ak bàyyi aadi ak kilifa yi nga xëye ñoo ànd ak ñun dana matale sëkk Alaaji Abdou Ndiaye yàlla dogal na waroon naa ñëw waaye daa mel ne ku soj mu joxe ngànt mu ko ñu teewal ko fi di ni ngi suñu Assane Diom mi ak mbooleem ñun xëy ñoo fi teew ñëpp di sant yàlla bu baax xam naa day kàddu yu ndigal waaye bu sëñ daam xërloo waxee rek bu bàyyi ali tëjee rek doyoon na sëkk waaye daa nag liggéey boo xam ne sëñ bi def ñu koo joxoon mu jëm ci jumaa ji te yaakaar naa ne ku wax jumaa ji wax day dem xadamaatul xidma ndax keroog ba ñu bi woo jox ko ba mu bu subaa ngeen dem ca kër sañ Cheikh Bass ban demee sëñ bi yow la jël boole ñu ak ñun nañu jël nañ lépp teg ko ci sa loxo. boobaak léegi bi ñu tàmbalee ba tey jii may wax ak yéen mosuñu ci yëkkati wala ñu jëf ci lenn loo xam ne waxtaan ñu ci ak yéen ba dëppoo ci ak yéen door koo jëf. ba yàlla dogalee liggéey bi jógi tamit yàlla dogal na ñu dem Turki ba giseek ñi nga xam ne ñoo ko waroon a liggéey bi waa ji ñëwee tuubaa xam naa dañ koy tënk rek ngir jataayu xataayu jataay bi. bi waaj ñëwee Touba ba def bilan bi tamit ci seen loxo la nekkoon fa war a jaar fépp yéen ko fa jaarale woon yéen a jëloon seeni couleur ak la mu ko waroon a liggéeyee yépp jox ko ko mu dem. bi mu demee tamit man dem naa Turquie ñu defi contrat bi yàlla dogal tamit li nga xëy moo ko waroon a liggéey lépp ma ngi toll ci deux cent soixante-quatorze mille euros cinq cent trente-trois deux cent soixante-quatorze mille euros cinq cent trente-trois mooy li ko waroon a liggéey lépp ba mu agsi Ndakaaru liñ ko njëkk a jox muy 30 pour cent yi ma ngi toll 82 mille 360 ba mu ko liggéey ba mu àgg ba ma demee ba xooli ko ba mu dëppoo ak li ngeen ko waxoon ñu dugalaat ko 60 pour cent mu toll ci 164 mille 720 euros ñu war koo dolli 10 pour cent mu war a toll ci 27 euros 27 mille 453 euros loolu bu conteneur yi dikkee ba Ndakaaru dañ ko war a dugalal 10 pour cent am yàlla dogal na tamit nag sant nañ ci yàlla bu baax ndax ba tey jii rek woo na ma woo na sëñ bu Bousso mi xamal ko ne ko ñaari conteneurs yi njëkk dugal dana ñëw la 24 incha allah ci weer yi ñu toll incha allahu rabbi muy ñaari conteneurs yi nga xam moom lañ dugal doon ndax ñett la benn bi daa xawoon a tardé waaye ñaari moom bu soobee yàlla woo na ma woo na sëñ Abdoulaye Bousso mi xamal ko ne ko dana ñëw la 24 octobre incha allahu rabbi kon loolu rek lañ ci woon leeral da sant yàlla bu baax nag di gërëm nag sëñ Afia mii di ñaan su borom yàggal ko fi lool ndax wax dëgg yàlla ku am yitte la ku am yëg la ci liggéey bi waxuma dara waaye ñun ñi rek fi mu ñu teg ak fonk gi rek wax dëgg yàlla lii mu ñu defal rek wane na ko waaw ndax it nit ki boo ko fonkul doo ko defal teraanga ji te lii lépp fonkeel gum fonk sëñ Tuubaa ak bëgg ko bëgg rek moo tax mu defal ñu teraanga ju mag ji kon nag sëñ Afia ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan borom yàggal la fi ba nga yeggal sa yéen ànd koog yow kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa lool rek la néew nañ ko tënk xam naa daal ne liggéey bi moom suñu borom suturaal nañu ci ak i tamit barke borom liggéey bi nag ndax yàlla dafa dogal le 10 mars le 10 mars fekk na mbooleem li war a liggéey muket yi ma ngi ci compte banque bi le 10 mars kon loolu dafay wane sëñ Tuubaa képp kum nërta liggéeyloo rek du la liggéeyloo te képp kum liggéeyloo dafay jël coono yaag yëpp bàyyi laa ndam li yàlla na ko bul woon a crise bi fi jaara Espagne dana doxe noo xam ne ci jumaa ji ñëpp doon ci yeme waaye téewul na li gàllankoor yi bari bari loolu Cheikh Ibrahima waxoon ne yoonu murit xamuñu kiris xol yu nangu leen xam te xol yu nangu leen Serigne Touba loolu moo wanewu ci liggéey bi ndax keroog bi ñu ko Serigne bi joxee ñu ñëw ci kër maag moom ngi tënk fii li nga xayma moom lañ war a joxe muy addee ji biñ demee joxe première euh, trace bi ne la 10 mars lu waaye amoon nañ ko indi keroog bi ñu dajee Madrid ba kenn ku nekk indi li nga am biñ ko xoolee ak bi naar bi ñëwee fii def bilan bi mille euro moo dox seen diggante ci 27000 euros yi euh, euh, euh, ci 274000 euros yi yi nga xam ne moom la naar bi def bilan ak ñun li ñu am keroog Madiri 3000 euros rek moo dox ci diggante bi waaw te gannaaw gi macha allah lu gars yëpp jaayante waan nan kon loolu moom mën na ne Sëñ moo ko defal boppam kon ñoo ngi sant bu baax di gërëm ñëpp xam naa lu ci doon ngeen jéggal ñu ko waaye la am nañu xol bu sedd gu yi. di gërëm ñëpp di sant nag sëñ Abdoulaye Bousso mi booba léegi ñoo ngi jokkoo fu ñu ci toll ñoo ngi déggoo ak moom di waxtaan ak moom ci fànn yëpp nag kon ñoo ngi jéggulu ngeen baal ñàkk wa salaam auzu billahi mina seytaan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wacal kalaami rasina wa mursida wa fikriti nawar wa xalbi arsida kon bokki julli bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di jiite ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Ibou Fadida Cheikh Modou Mountakha di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ti wér ànd koog moom liggéey bi muy liggéey Serigne Touba di nuyu nag kilifa jotaay bi di Serigne Hafia di ko jaajëfal bu baax ci taxawaayam bu rafet ak yiteem ju kawe ci liggéey bii nga xam ne moom lay liggéeyal Serigne ci xitma bi mu ci jumaa ji di ziare bu baax itam sama sëriñ yi nga xam ne nii ñoo ci ñu ngi sama wet sëñ bu Bousso moom sëñ Thierno ak sëñ Abdoulahad moom soxna maam Asta di nuyu baax sëñ Assane Diop mii ndax xañ na Espagne la nekk man maa ngi Angleterre waaye mel na liggéey bi li ma ci ëmb bu bëriwut kon ñu ngi koy sant baax di ko jaajëfal ci itam di kawe jooju teewal fi nag waa communauté UK Mouride bu Angleterre UK bi yëpp ñoo leen fi teewal ci ndigalu sëriñ daam bi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi muy sëñ daam Guèye nga xam ne yàlla dimbali nañu ba at yi yëpp ñu ngi doon dox ci wàllum fédération sëñ Tuubaa dimbali la ñu tënku ci fédération ba ñëw ci kanam Cheikh mun taxaa jébbal ko suñu liggéey mu tuddee ñu tur yastabsiroona bi nihmatin moom Cheikh Mouhamadou Mountakha muy tur woo xam ne tur wu doy waar la wu yéeme waaye nag ab soññee la war a doon ci képp koo xam ne rek xañ na yaa ngi dégg-dégg lu aaye boobu kon ginnaaw bu ñu santee yàlla sant yonent bi julli ci yonent bi sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu sol ñoo ngi sant képp koo xam ne teew nga fi képp koo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu te nekk ci UK bi ci Angleterre ñu ngi lay tàllal suñu loxo li leen xamal ne liggéey bii nga xam ne mooy liggéey mu liggéey Moukhaddamatoul Khidma muy bii waa jumaa ji liggéey te kenn ku nekk noonu fi fi ñu taxaw ñoom ñun ñu waroon faa yàlla dogal ñoom ñu nekkal ñu fii ñun tam ñu war leen a mën a nekkal ci àll bi war nañoo bàyyi suñu xel ñun ñëpp ci liggéey bii ñuy liggéey Sëriñ Tuubaa def ci suñu fulla def ci suñu fayda def ci suñu jom def ci suñu ngóora te xam ne liggéey la boo xam ne nii liggéey bu Sëriñ Tuubaa gërëm la li liñ fi mën a gis nag lu mu bari bari yëngu yi bari na waaye nag liggéey bii di liggéey bi jumaa ji moom amul làmbatu ndax ndigalu Sëriñ Tuubaa joxe woon la te ndigalu Sëriñ Tuubaa joxewul nag lu sëñ Tuubaa joxe moo gën fuuf ndigal lu ndigal lu sëñ bi joxul ndax dañuy nab nabi rek di dàkk bëgg-bëggu sëriñ bi waaye nag lii bëgg-bëggu sëriñ bi nag mooy liggéey bii ci jumaa ji nga xam ne ñun ñëpp fa lañ war a taxaw guddi ak bëccëg di fa yendu di fa fanaan di ko jagal kon ñu ngi sant ñëpp rek di nuyu ñëpp di wax daal képp koo xam dégg nga kàddu gii ak foo mën a nekk nag ci adduna bi ba adduna daj liggéeyub jumaa ji moom murit bu ne war nga ja feeñal sa yéene sa yitte ak sa pësteef ndax li gën a am solo ci adduna mooy liggéey sëñ Tuubaa te liggéey sëñ Tuubaa nag ndam la comme ni ñu ko waxee rek ndax man day waa Espagne man ñeenaa leen loolu wax dëgg yàlla ndax Sëriñ tubaa moom kum liggéeyloo faw dana la dana la jox ndimbal ba nga mën koo liggéeyal kon ñun tam ñoo ngi xaar yeneen dëkk yi nga xam ne nii ñi ngi ci àdduna bi tam ndam lii waa Espagne am bu ñu yaakaar ne foofu rek lay yem ndax sëñ Tuubaa dañoo a liggéeyloo moo tax mu yebal ñuy dem ci àll bi na taalib yëpp bàyyi xel ne ak fu mu a doon rek mën naa xëy bis joxe fa ndigal ne liggéey li ma nangam te su boobaa nii a defee wala ñu def ko noonu ñu ngi leen di jaajëfal baax na ci liggéey boobu ndax murid yëpp ngeen ko liggéeyal di ñaan yàlla nag mu saxal ñu dakk ci waq di xawaa ijëli si ne daamoo fii xidmati wa hablahum maaram moo barkib sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Euh, ñu ngi nii mbokk jullit yi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Afia Bousso mi euh, di ñaan suñu borom yàggal ko fi tam ànd ko wér ñu ngi siyaar it suñu mbokki taalibe yi fi nekk di ci jiital sëriñ Mbacke njaay ndax euh, moom yàlla dogal mu nekk jëwriñu ci Espagne ci fédération yi fa nekk yëpp kon dañuy jël nuyoo bi moom teg ko ci loxoom mu jàll ne ko ci suñu waajur yi fi nekk muy suñu Mor Tambidou ak si ñaari Touré ak ñeneen ak ñeneen euh, di sant sëriñ Asan mi euh, cant goo xam ne ci wàllu fi ñu féete laa koy sante ndax euh, man moom dafa am lu bëri lu ma xam ci moom toll nay jamono yoo xam ne mbokk yi nga xam ne ñëw fi jóge bi ñu sang si daan ñëw ca dëkk ba te boobu dalukaay yi manqué woon na nekkeen wi manqué woon na waaye ban laajee ki war a jël responsabilité di dalal gàññ amul kenn ku yëkkati loxoom ndax dafa metti woon moom mii moo yëkkati woon loxoom te loolu mën na fan wéraat li may wax ne ku ñëw man mën naa koo jëli mën naa koo dal mën naa koo yeewi kon loolu pour muy lu may fiin dafa am lu may leeral rek pour ngeen xam ko bu baax ah, jëmmam gii nag man joxuma dépasse bu joxe daa maa koy jox xam na li ma koy wax kon damay wax ngir yàlla ak sëriñ bi ak jataay bi eh, suñu borom nag mooy cëral nit mooy def nit dara ci moom xëy na ni ko suñu borom bindee noonu la ko yàlla bindee eh, ndax am na fu mu féete foo xam ne eh, danay soññe di soññe ba man mii dana may soññ sax di ma woolee rek ba léegi damay teg fee sama téléphone ndax soññe bi te loolu lépp xam naa ni xër gum xër ci liggéey Sëñ Tuubaa bi la waaw damay bëgg rek mbooloo mi bañ koo jàppee ci wàllu woowu ak xëy na daje yi nii daje it te saafu daje amee mu nekk fa jël kàddu lam ci jublu rek mooy bëgg liggéey Sëñ bi teg ci loxoom mu àggale ko fa liggéey boobu da àgg waaw ba tax na euh, liggéey bi nga xam ne moo nekk ci moom jugee ci ndigal li ci sëñ Afia Bousso mi léegi nan xam ne nekkutul ndigal ndigal loo xam ne ci taalibe yi la jóge mais ci ndigal sëñ bi la jóge dem si ci moom mu war koo jàllale message boobu ñëpp xam ko euh, kon ñoo ngi topp sa ginnaaw te it di ñaan euh, li la sëñ bi jël ba teg ko sa loxo yàlla suñu borom def ba nga foo ko bëgg a àggale nga àggale ko fa tan bokk ak yow liñ ci am lépp suñu borom defal ñu ko suñu jot loolu mooy benn point bi nga xam mooy bu njëkk bi dama tënk résumé rek tënk wax ji ñaareel bi ci des mooy euh, xam naa bu fekkee ne ci wàllu liggéey bi ñu la ndax xëy na jataay bi mën naa suñu suñu borom dogalaatee mën xëy na déwén nañ koy defaat incha allah mais ñu jàll ci benn message rek pour ñi nga xam ne ñoo ngi ci biti ñu mën a xam ne lii mi ngi ci biir daayira bi te lu nu war a maanaam saafara la Euh, yéen ñii ñëpp nga xam ne ay tukki ngeen tukkikat ngeen ñu bokk yi nekk ci àll bi euh, gis nañ ne jumaa ji bari na lu ñu fi indi ñaar lu dem ci wàllu ay matériel lu mel ne ay aspirateur lu mel ne machine yi ngeen xam ne mooy defar karo yi ak di ko raxas ak di ko aspiré euh, bu ngeen jógee ci biir jumaa ji jëmbul ne da ngeen ci gis ay benn benn yoo xam ne mu ngi nekk sur place taxaw fa te kenn defaru ko ndax dafa yàqu dafa paan te paan boobu lu mën saafara la xam naa su ñeesan ci danañ ci danañ ci bu jógee fii dana am lu mu ci wax lu bëri mais nan ko bàyyi xel pour bu ñu delloo ñu bàyyi xel loolu ndax liggéey ba jënd ay machines yoo xam ne yii ay huit mille euros la jël yii six mille euros yii dix mille euros euh, yàlla dogal mu ñëw fii xëy na am lu ci kii ñu ñu gaare ko noonu ñun war nañoo topp ci ci topp ci li nga xam ne mën a indi ci ginnaawam pour lu ci mën a manqué wala lu ci mën a yàqu ñu mën ko defaraat boobu mooy benn bi. beneen bi ci des it gisaat naa beneen euh, loo xam ne xëy na ci wàllu daayira mu Xaddamatul Xidma bi. ñun ñu nekk ci diaspora bi euh, liggéey bi tënku gëm war a tënku ci biir daayira it gis naa ni tënk boobu des na man sama gis-gis sama gis-gis bopp euh, sëñ bi wax na ko léegi fi toog jumaay sëñ Tuubaa ji moom euh, damay yaakaar fa am murid nekk ñu ne la jumaa ji nangam a ngi fi wala lu war a defar ngi fi wala nangam sa yittey bopp da ko war a bàyyi def jëf jëf ca loola ba loolu saafaraw nga soo ko demaat si yittey bopp ndax dafa bokk ci suñ sëñ Tuubaa bàyyi woon fii batale ko kon ndigalu sëñ Tuubaa la euh, kon daayira it nan góorgóorlu bu baax ñu dayre yi nga xam ne ñoo ngi ci àll bi moo xam Afrique la moo xam Asie Asie la moo xam Europe la dayre bu ci nekk ñu jéem a fexe ba samp fa loo xam ne day duggaat ci biir daayira Muxaddamatul Xidma bu fekkee ne kenn nit sax moo ko fa yor di ko fa soññee ñu fexe ba teg fa kenn koo xam ne dafay nekk ci biir di ko soññee pour ñu leen di dimbali ñoom it ci wet gi ndax li liñ tënk ñoom ci liggéey Sëñ Tuubaa bëri na ah, am na ñu fi nekk ñoo xam ne xëy na mën nañ cee ba ñu xam lu bëri sëñ Abdou Lahad mën naa am après na ko développé ci lu jëm ci du jumaa ji rek yeneen ak yeneen ngi ci ñoom ay bàq yaag yeneen ak yeneen yoo xam ne ñoom ci ñoom la féeti seen oto yi sax man damay gis ñaare même oto yi nekk ci biir léegi damay toog ba caag gis ci oto boo xam ne dafa paan dara ñuy bëgg ku leen ko defaral te xëy na léeg-léeg mu leen di të la loolu danga ko war a xam kon li nekk ci biir jumaa ji te nekk ay gàllankoor nan fexe ba ñuy nekk ci àll bi message bi àgg ci ñoom ñu bañ jàpp ne rek ni ñu gisee jumaa ji amul jumaa ji lépp li fu war a kii yemb na loolu nan ko bàyyi xel ba bu mu fi jógee it bu Sëñ Asan amee leen lu mu ci doxaat mu mu wax ko ñun ñu nekk ci biir àll bi ñu xam lool maa ngi jégalu ñëpp damay bañ ma gudd maa ngi jégalu ñëpp leen baalu àq asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki julli yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi kilifa ak jotaay bi sëñ Afia Bousso imam di ko nuyu di ko ziar bu baax waaye di ziare sëñ Abdou Lahad Bousso maam Thierno ak sëñ Abdou Lahad maam Asta ak sëñ Assane mi ngi dend dendal di leen ziar baax di ziare mbokki jëwriñ yëpp rek fu mën a bàyyikoo ci gox yi àdduna bi yëpp ñi ngi am mbégte bu baax di bokk yéen jotaay bi di rafetlu jotaay bu baax a baax ndax jotaay bu la ndax eh, yendoog imam eh, jafe la maanaam mbaaxam rek ak tiranga ji yëpp kon ñu ngi koy ziare bu baax di jaajëfal mbokki jullit yi mbokki taalib yi fi teew yëpp euh, sëriñ Dame Cissé Touba Argentine euh, teewal fi waa fédération Touba Argentine ci jëwrin sëriñ Mortala Sall ak sëriñ Bamba Niang ak mboolem dawaayir yi nekk Touba Argentine yëpp rek ñoon ñoo leen fi teewal ngir euh, daayira bu mag bi nga xam ne mooy mu Muxaddamatul ma te yore liggéey bu mag bu am solo nga xam ne du jumaa ji rek waaye lépp loo xam ne lu ëmb jumaa ji la ak li ci biiram lépp daayira boobu moo ko moo ko yore kon ñu war ko bàyyi xel baax a baax ñu ciy soññ suñu bopp di ci soññ bépp daayira bu nekk Touba Argentine rek ak fu mu mën di nekk ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax xam ne ci digal Serigne Touba la bokk nga xam ne lépp lu ci waay def rek euh, Serigne Touba nga ko defal ndax mi ngi mel na nga def ko ci liggéey Serigne Touba ndax moo yor jumaa ji kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax di nuyu ñëpp xanaa waxtu moo gàtt rek waaye ñoo ngi am mbégte bu baax ci jotaay bi nga xam ne teewee nañ ko muy jotaay mbégte di jotaay tawfeex xanaa di ñaan yàlla suñu borom rek Serigne Touba dugal nu ci waq di xawaay jëla si na daamu fi xidmati wahab lahum maaraamu barke Cheikhul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aousubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim waaxrinaa yaa rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma mbokki jullit yi fii teew mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Serigne Mountakha ibnu Cheikh Ahmad di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér yàggal fi njaboot sëñ tubaa gépp di jaarale sunu nuyoo muy wàcc sëñ Afia Bousso imaam ak mbooleem waa xidma bi ñu fekk ñëpp di am mbégte lool ci tàbbi gi ñu tàbbi ci liggéey bi ak fekk gi ñu fekk jataay bi di leen jot li nuyoo waa Touba Côte d'Ivoire gépp amal nañ yéene sëñ Magoumba Thiam mi nga xam ne moo fa nekkal sëñ Touba am mu jiite tey jii liggéey bi ñu ànd kook noonu waaye ay yitte moo ko dab mu dem Dakar jiital nu ci liggéey boobu nun ñoo jiite xidmatul xaddim mi nga xam ne bii mooy ndaw ñu féete Côte d'Ivoire tey liggéey Sëriñ Tuubaa ñu ànd kook jëwriñ yu mag yi liggéey bi nag ñoo ngi ciy sant bu baax ci tàbbi gi ñu tàbbi ci seen biir mu mel ne Sëriñ tubaa danoo nar a gàttandu ndax ay jàmbaarkat bu ñu la jiitee woo nga ànd ak ñoom war saw fit war naa dëgër waaye sa yaakaar yi war naa gën a dëgër kon loolu ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax liggéey bi nag ab gox la rek buy dox ca Touba Côte ndax bëgg nañ koo nos nosin woo xam ne bii comme liggéey la boo xam ne continuité lay doon day continuer ba faw waraan koo mën a teg ci loxo yu wér di ko saytu mu jaar fi mu war a jaar wàcc si ci ndaw ñi ñu ànd kook yéen loolu nag sëñ Touba Lo mi nga xam ne mi ngi ci doon nab nabi euh, daaw ba ren ànd koog sëñ Balla Diop mi nga xam ne mooy jëwriñu Touba Yamoussoukro ak sëñ Sadikh Kane teewe gi ñu ko teewee tey jii yokkaat nañu pësteef waaye it fas nañoo yéene ànd ak yéen liggéey bi bi ginnaaw bi ñu xamee ne sëñ Touba ñaar yi la fi bàyyi muy jumaay ji ak màggal gi kon bu fekkee ne yeneen féete jumaay ji képp ku taalibe ku bëgg a dox war naa ànd ak yéen ci liggéey bi fas nañoo ànd ak yéen liggéey bi ba bu déwénee bu ñu jël siwaatee fii di ngeen xam ne Côte d'Ivoire ànd nañ ci ci loolu nag ñoo ngi koy kàddu yi ñu ngi koy jël ci ndigal sëñ Magoumba Thiam ak jëwriñ sëñ Touba yi àndal liggéey bi ak xidmatu xadim bi nga xam ne ñoo ko jiite noo ngi sant bu baax di leen ñaanal ci baax sëñ Muntaxa suñ borom teewale na ko fi at yu bari ñu ànd ak sëñ Afiya lu yàgg a yàgg a yàgg di liggéey sëñ Touba tam nangul na ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mina seytaani rajim laa hawla wala quwwata illa billahi alil asim barke borom Touba mbokki julit ñu ngi leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ji jiital ci nuyoo bi alxalifatul aam li tariqatil muridiya sëriñ Muntaxal Bachir mbakke di ñaan sunu borom yàggal ko fi ci barke borom Touba di nuyu sunu baay baay Afe Buso di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi bu baax a baax di siyaare sëriñ Assane Diop ak ñi ñu àndal liggéey bi yëpp di siyaare sunu jëwriñ ji nga xam ne moom lañ teewal fii tey muy Mame Balla Guèye fii Touba Mali jëmm ji nga xam ne nag moo yor kàddu gi di wax di Abdoul Khadir Mbow di trésorier Moukhaddamatoul Khidma Touba Bamako di siyaare bu baax it Serigne Makhtar Faye ma nga xam ne moo jiitee liggéeyub Serigne Touba ba yëpp ci Matlabul Fawzayni ak ñam àndal liggéey bi yëpp ci barkeb Serigne Touba di leen siyaare bu baax a baax di am mbégte bu baax ak kontaante ci liggéey bi ñu teew si tey muy Moukhaddamatoul Khidma di wax ne ndigal rek moo am solo te yàlla def na ñu ne jumaa ji dafa bokk ci ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ bi eh, bàyyi woon muy seewal xadim mm, di santal sëriñ Touba ba mu ñu ci boole ñu nekk ci Touba ba génn bitim réew ci Touba Mali di fa liggéeyal sëriñ Touba ci jumaam ju tedd ji ci ndigalu sëriñ maam Balla Gueye ak sëriñ maam Góor ja sëriñ Fallou Thiam ak eh, sëriñ Mbaye Thiam ak jëwriñ yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey ba yëpp di ci soññee nag ngir bu nu àggee lii nu defoon tey ak nu lu mu kawe kawe ñuy ñaan sëriñ bi dimbali nu defal nu tawfeex ba ñu gën a mën a def lu gën a kawe suñu njort ci liggéey sëriñ tubaab yi am nañ ci yéene am nañ ci cofeel am nañ ci bëgg bu baax a baax ñu ngi ñaan suñu borom dajale ñoo tawfeex ak taysiir ci barke borom Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. Eh, ñu ngi leen di nuyu di leen balo ak di leen baal ak di jiital ci nuyoo bi saahibul fadilat Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan sunu borom yàggal ko fi te mu wér waaye di ci teg al imaamul akbar Cheikh Afia Bousso ak mboolem ñi nga xam bi bii ne ñoom la nekkal ci jumaa ji ak waa daayiratu muxaddamatul xidma di nuyu it mboolem taalibi sëriñ Touba yi ni ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu waa fédération yëpp kon gannaaw bi ñu nuyoo waa Muxaddamatul Xidma ak mboolem daayiri sëriñ Touba yi ni ci biti fédération bi e, suñuy wax moom du ci gudd e, duñ fi nekk di lim ay dëkk wala ay tur waxoon naa fi daaw ne li ñu sëñ bi digal ñii ci nekkal ñun ñoo leen waroon a nekkal ci seen yitte muy jumaa ji ah ba ma koy wax fii nag eh, ne woon jumaa ji daa war a di sangu di sol mbubu boobu xamuñu woon ne sëriñ bi danañu jox liggéey bii simin ba ca topp mu jox ñu liggéeyu tàpp yi alhamdulilahi rabbil alamin kon léggéey bi nga xam ne bii ne moom moo ci jiitu muy mu xaddimatul xidma ci la sama soññee gën a jëm di ko soññ continent yëpp ak fu daayirab sëriñ Tuubaa ne nañ xam ne bii ne kenn ci ñun ku nekk moo waroon a futteeku laxasaayu nekk ci jumaa ji kon ñi ñu fi nekkal amal nañ leen ak cant ak ngërëm lu mat sëkk di leen xamal ne it ñoom ñii de am nañ ci ñun yëg-yëg boo xam ne bii néew nañu ko am ci ñun ndax ñun ñëpp gis nañ ni réew mi doxe ak tàngoor weeg mbasmeek yooyu ñun suñu dëkk bañeen ba ñu nekk muy Palma de Mallorca mënumaa wax ne jiituwul ci liggéeyu jumaa ji fii waaye bu dul première kenn mënu koo nekk jiitu ci deuxième bi am na bis boo xam ne bii ne dañoo confirmer suñu dëkk bi kenn yëngatuwul tàngoor yu bari ba ñu confirmer sama kër ne ñu feebar bi laal na leen ma wax ko sañu asan mii mu dugal ko ci nopp Seex Afiya ñaan gi nga xam ne bii ne defal nañu ko ak yëg-yëg gañ ca def wallaay sama borom rek laay seere néew na kuñ ko wax muy mu jox ñu yitte jooju kon nag loolu lu jara sant la kon yéen ñi nga xam ne bi ne yéen a jógee England muy Angleterre wala Côte d'Ivoire Argentina ak Europe Asie Afrique fu waay mën a jóge nan jàpp ci ñaari liggéey yi Muxaddamatul Xidma yi mooy màggal gi ak koor gi ak yitte yi nga xam ne bii ne daayira bi na ko soxla te mënaluñ ko seen bopp démb bi ma demee bàqee sama xel dafa dem ci ne su ma amul ndigal dama naan mu xaddimatu xidma nañ sant diaspora bi ne leen bu fi ab néew yéegati ci oto eh, njaga njaay wala mu yéeg ci ab Mbàkke Tuuba nañ leen wutal ay corbillard yoo xam ne yéen ku ci dugg danañ xale bii ne taalib sëriñ Touba bu sell a ngi nii jëm barsàq jëm aljana waaye jëlub néew teg ko ñu xool ñu wàccee ab 4-4 eh, sama classe gu njool gi tànk yee des ci bitti loolu xam nañ ni seelul te ku dem ci réewi tubaab yi ak réewi kii boo demoon Côte d'Ivoire gii rek fu néew sori sori dañ naan la boo jëlul corbillard mënoo koo jëlee ci dëkk bii yóbbu ko fële bañ ko tàmbalee léegi mën na ñeen fukki at kon nii ñu def ba am margo bi am xabru yi am taxawaay bu rafet bi nga xam ne bii ne mi ngi fi kon tamit nañ boole loolu ci sunu liggéey bari wax nag taxul ma koy wax man a wax taxul ma koy wax damaa gis ne rek lii moom rafet na ci julliti Serigne Touba yi rafet rafet ak taalib yi kon yéen ñëpp kuy dem na bàyyi sa xel ci loolu ni ñuy sonne ci wata vidaas wala ndox wala nangam nañ ko sonne it ci am ay corbillard yoo xam ne yii ni dañ koy teg ci loxol Moukhaddamatoul Khidma ku fi ñëwati indi sa way wàññeeku ñu mën la koo tegal ci condition yu leer yu rafet ngeen baal ñaax baax a baax nag gannaaw loolu nag ñu ngi sant sëriñ bi bu baax di ko wax ne ko ñun taalibe yi ñaar rek mooy suñu mu ñaanal ñu wér lool ñaanal ñu yor bu baax wér liggéeyal sëriñ Touba yor luñ mën a joxe addi waaye loolu yëpp nag maa ngi sant suñu jëwriñ sëñ Mbacke Ndiaye ak président d'honneur Serigne Mor Tambidou noonu ñu ko waxee lu wér la sëñ moor mii nekk na Espagne lépp fanweeri at jiite liggéey bi ak ñi mu ko àndaloon te tey jii la na ca gën a ne ca kanam na ca digg ba na ca gannaaw sëñ Ibrahima Mbaye Diop mi sëñ Kaañ Kama mee jógee Tenerife fa toogal fi El Hadj Abdou Ndiaye ak jëwriñ sëñ Assane mi nga xam ne man ak ñoom ñoo bokkoon tàmbali mu liggéeyu Muxaddamatul Xidma bala balay Palma de Mallorca ya booba sax daayira bi yaakaar naa ne bu bu sosoo yaakaaru mu ne jiitu nañ ñu ci kon loolu ñu ngi ciy doolee soññ suñu bopp bu baax a baax di nuyu sëñ maam Mor gi ñoom ak ñi fi teew ñëpp am na ñu fi xam ba ci sama maam jeete gannaaw eh, ñu ngi lay nuyu bu baax di leen bal ak yal na yàlla dooli sutura dooli mucc dooli xéewal sàmm njaboot gi bu baax a baax sëriñ bi nag sant nañ la bu baax ci taxaw bi nga xam ne bi ne taxawul ngeen ñu ko diine sëriñ Touba ji laay wax ndax àddina bépp taxaw taxawoon nañ ñëpp mel na dañoo daw lislaam ñëpp dañoo daw jàkk yi yéen ngeen engagé ko kon nag loolu rek doy na succès wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa eh, ngi nuyu kilifa yi fi yëpp di leen nuyu ci turu Cheikh Amadou Mountakha waaye di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa gii nga xam ne moo ñu jiite ci liggéeyub sëriñ Touba di sëriñ bu so di ko ñaanal moom it yàgg ak wér di nuyu sunu mbokk taalibe yi fi teew tey jii muy jataay boo xam ne mbégte la mu rëy ci sëriñ Afia ndax lu sedd xolam la loolu it feeñ na ci ñun ñi tera teral teranga ji ñu teral te ànd ceeg mbégte lool te loolu ñun ñëpp la ko defal ñun ñi fi teew kon moom it ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm di nuyu jëwriñ yi fi teew yëpp di jaar ci seen tur muy Serigne Assane Diop mi nga xam ne coordonnateur la ci liggéey bi ci jasporaa bi yëpp bëri na dëkk yoo xam ne ci taxawaayam la fa liggéey bi duggee Serigne Fallou Diop Angleterre ñu ngi koy nuyu di nuyu jëwrin Serigne Ablaye Dieng Fawceyni ak mboolem waa Angleterre ñoom ñëpp ci taxaw gi ñu taxaw ci liggéey bi Serigne Dame Cissé Argentine ñu ngi koy nuyu. di nuyu sëriñ Mamour Gueye mi nga xam ne mooy secrétaire général euh, national bu association bi nga xam ne taxawal nañ ko te jublu ci mu gën a organiser liggéey bi ngir nit ñi mën cee participer ci wàllu compte ak yu demee noonu moom it di ku am taxawaay ci liggéey bi wax dëgg yàlla sëñ Mamour Gueye mais bëri na ay motoor yu oto yu paan yoo xam ne moo koy dugal ci conteneur am andi ko ba tey te du ci fayu dara waaw euh, di nuyu tamit sëriñ maam Thiat Thioune di jàngkatu xasida di nuyu sëriñ Touba Lo Côte d'Ivoire sëriñ Espagne moom it di ko jàmbaare ci liggéey bi sëñ Fallou Diame nekk Barcelone am na taxawaay lool ci liggéey bi moom it eh, ku ci am pësteef la ñu ngi koy sant bu baax bu baax di ko gërëm di nuyu tamit Serigne Mor Tambédou nga xam ne moom mooy président d'honneur bu fédération bu Espagne ni ko Serigne Adi waxe léegi di nuyu Serigne Sidi Niang di porte parole Madrid daayira Madrid di nuyu Serigne Adi Touré di jëwrin ju mat jëwrin joo xam ne ab soññekat la kàddu yi mu fi wax léegi rek firndeel na ko kenn ku nekk xam na ne dëkk boobu mu nekk di euh, di Palma di Majorque benn dëkk mënu leen ci liggéey bi di nuyu tamit Serigne Mbacke Ndiaye mi nga xam ne moom mooy président fédération bu Espagne di ko sant moom it ci taxawaayam ci yittewoo gum yittewoo liggéey bi niki noonu Serigne Dame Khary Lo moom it di président fondation euh, Cheikh Ahmad Bamba bu Espagne moom it ñu ngi koy nuyu bu baax euh, nekk jëwrin ju mat jëwrin ci Touba Ibisa ak rakam euh, Baye Ibrahima Lo ñoom it ñu yàgg a taxaw ci liggéey bi ndax oto yi nga xam ne ñoo ñëw fii di yóbbu personnel bi ñaari oto yi fi njëkk ñëw yëpp Baye Ibrahima Lo mi moo ko dawal andi am na at moo xam ne bi ñu ko yóbbu ci suñ Sidi Muxtaar ñun ak suñ daam xëri ñoo ànd yóbbu ko ci kër Ngànna euh, kon it yàgg nañoo taxaw ci liggéey bi di nuyu Serigne Basirou Niang ak sëriñ Maam Mor Guèye di nuyu tamit sëriñ maam euh, sëriñ Saliou Diaw xasida nekk Madrid moom it sëriñ Ngagne Kama doon nit ku taxaw liggéey foofu ci Touba Tenerife waaye di yóbbante nuyoo El Hadj Abdou Ndiaye moom it di ku taxaw ci liggéey bi sëriñ Ibrahima Mbaye Diop euh, kenn ku nekk xam na ne boo xoolee image yi liggéey daayira bi yi jiitu machine yi jiitu euh, bokk na ci ñi nga xam ne ñoo koy andi di nuyu tamit. mboolem représentant yi nga xam ne ñi ngi fi te nekk Afrique fu mel ne Côte d'Ivoire Serigne Touba ak Serigne Moustapha Fall mi doon wax léegi jiite euh, daayira ndaw yi foofu di nuyu tamit Serigne Dame Diaw moom it nekk foofu ci Côte d'Ivoire di nuyu euh, waa Mali sëriñ Abdou Khadir Mbow moom it nekk Mali moom it ñu ngi koy nuyu di nuyu sëriñ Mame Balla Gueye mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi foofu. Hmm. waaw sëñ Dame Cissé Alsantine tudd naa ko léegi ñoom ñooñu ñëpp di ay jëwriñ ñoo fi teew sëriñ bi e, wuutu fi ñu ci des. waaye du tee am na ci ay dëkk yoo xam ne xëy na kenn teewul leen fi waaye dañoo jàmbaare ci liggéey bi ndax boo dee xool ren ci liggéeyu màggal gi e, ñi fi indi àddiyee ci màggal gi xam naa ne mën nga ci génne waa Espagne ñoo ci jiitu ak itali Espagne ñoo ci jiitu ci njiital Serigne mbakk Ndiaye keroog fekk nañ la jumaa ja ak El Hadj Abdou Ndiaye teewal fi ñoom suñu aad ñi ak suñu daam xariloo indi fi liggéey bu am solo. niki noonu tamit waa Côte d'Ivoire Serigne Moustapha Lo Serigne Moustapha Fall ñoom ñoom ak Serigne Touba indi nañu addiyee ci magal gi. niki noonu waa Mali Serigne Mame Balla Gueye ñëwoon na fi teewal fi Mali euh, teewal fi ñoom Serigne Abdou Khadir Mbow mi doon wax léegi. niki noonu tamit waa Belgique Serigne Abbas Dieye ak baay Fall Baye Fall boobu nga xam ne moo fa nekk di laaj addiyee bu jàmbare waaw. ni itali noonu euh, sëriñ Daaru Touré ak sëriñ Ibrahima Ndiaye xasida soo dee xool kon màggal gi soo ci génnee dëkk yooyu muy itali Espagne Mali Côte d'Ivoire euh, ñooñu ñoo fi indi addiye kon dafa mel ne turu liggéey bi yaatu na ci bitti waaye ba léegi dafay mel ne dëkk yi niñ ciy participer xaw naa néew ba léegi loolu tamit xëy na li sëriñ bi wax léegi liggéey bi moo fa àngut mën nañ ci ràññee tamit taxawaayu Angleterre Angleterre tamit wax dëgg yàlla euh, sëñ jëwrin euh, ji nga xam ne moo leen fi teewal di sëñ Fallou Diop dafa doon ko teeloon na liggéey bi moom it euh, noonu la tamit la ko jëwrinam fonke di sëriñ Ablaye jàng xasida kon dëkk yooyu ñoo fi ñoo fi indi ab liggéey waaye nag dafa am dëkk bu ci ràññiku boo xam ne mooy Amérique daaw lañ fa dem ci turu daayira bi man ak sëñ Assane boobaak léegi ci huit mois lay toll euh, bañ fa demee fondation Cheikh Ahmadou Bamba ñoo ñoo hérité woon Moukhaddamatoul Khidma ñu dem fa waaye bañ fa demee ngir soññ ci liggéey bi lu jiitu ñu fay dem xam nga ne sëñ soxna Njaxat Jóob ak sëñ Amsatu Laam ñoo daa soññee liggéey bi foofu di jaay ay waaye ñoom bañ demee ñu wax ñu méthode bi nga xam ne jàpp nañ ne suñ ko taxawalee ci Amérique liggéey bi dana fa am solo ñu ñu def ci réunion ñu delloo si xalaat bi fii ci jëwriñ daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu rafetlu ko ñu taxawal liggéey bi ci 8 mois lay toll 8 mois yooyu nag dañ cee def résultat bu am solo te liggéey bi ñu ngi koy jaarale ci ay jumtukaayu xarala yoo xam ne doonul looy dem ci daayira yi di soññe wala dara ci li ñuy wax crédit carte wala paypal walla yooyu ci lañ koy jaarale nga xam ne da ngay adhéré wu ñu la koy dagg par mois wala ngay jol sa téléphone participer mën nañu wax ne ci koor gi lañ ko tàmbali yónnee nañ fi addiya dañu bañ tudd lim bi waaye lim la bu am solo boo xam ne Covid bi li muy tartar addiya jooju moo jiitu ci liggéey bi amal njariñ liggéey bi lool ci ren jii ci màggal gi liñ yónnee woon ci koor gi mel na ne dañ ko ful te teewul gàmmu gi tamit noonu lañ koy defe nga xam dañ koo tëral ci ñetti mbir entretien bi muy màggal koor ak gàmmu mboolem mbir yi nga xam ne daayira bi daf ci financé financement bu bëri saa su ñëwee dañuy vir dañuy def virement yoo xam ne ci compte Muxaddamatul Xidma lañ koy def direct ci conte association bi ñu bindal leen tontu ñu rendre compte parce que fondation la boo xam ne dafa tege ci ay kayit yu leer foofu ci Amérique loolu di liggéey boo xam ne lu nosu la jàpp naa ne ñoom ni ñuy doxee su demee ba gën a yaatu dana amal njariñ lool liggéeyu daayira bi ñoom it kon dañuy beral cant seen jëwrin yooyu di sëriñ Seex Jonn ñoom soxna maam Jaara Fay di sa jarbaat ak soxna Maymuna mi nga xam ne moo yor seen communication ak sëriñ Amsatu Lam euh, waroon naa teew xam naa dafa am ngànt kon ñooñu du du ñàkk ñu beral leen cant soññ leen ndax méthode la boo xam ne bu ko dëkk yi royoon dana noppal lool liggéeyu daayira bi eh, ndax organisé gu organisé wu kon ñi ngi sant ñëpp ci jëf ju am solo jooju ñi ngi sant ñëpp ci jëf ju am solo jooju ndax dëkk lu mu tuuti tuuti ni ma koy waxee ñun ba ñu def tournée di leeral liggéey mu xadimatul xidma dañ koy leeral rek bàyyi fa jëwriñ yañ fa bàyyi seeni niveau ñooy rawante ci ni ñuy déggee liggéey bi ak ni ñu xamee ne liggéey bu farataa ngi nii bu neex sëñ Tuubaa tax ñu wut kuñ kuñ kuñ kuñ kuñ kuñ jàpp teg ko ca daayira ba ngir muy laajal mu xadimatul ma loolu dafa mel ne ñii fi teew suñ borom taw feexal na leen ñu xam jumaa ji fan la toll sëriñ bi ak it entretien bi mun munta ñàkk taxawaay bi mun ta ñàkk ci wàllu diine te loolu moo liggéey bi ñoo ànd ndax nag lu coow li bëri bari suñ tubaa moom diine moo ko taxoon a jóg moo tax ñu tumaranke ko fan at ak ñett kon nag li nga xam ne mooy mooy li ko taxoon a jóg li koy symboliser ña koy taxaw loolu lu ko gën a bëri tiyaaba ci yoon yi man gisuma ko loolu nag ñi am xel te ñor ñoo koy xam kon loolu ñu ngi ciy sant jëwrin yi ci wuy si te Europe gépp nag lañu waroon lañu waroon waaye xëy na lim bu néew wuy si nañ ci di ci jàpp mënuñoo fàtte tamit federation Espagne ki euh, France wax dëgg yàlla bi ñu fa demee ñoom it dafa am ay liggéey yoom solo yu ñu def ci daayira Moukhaddamatoul ma donte fan yi am na liggéey bu ñu yor ba tax ñu gëj yëngu ci liggéey bi waaye duñu leen fàtte ndax morgue bi ñoo ko indi ñoo fi indi auto vidange bi indi nañ fi ñaari machine yoo xam ne yuy bale la te loolu xaalis bu dul jeex lay lay jar ñoom sëñ Modou Kara sàmb ñoom kon ñu ngi leen ñu ngi ñu ngi leen di fàttaliku ci loolu te di leen soññ duñ fàtte it fédération Veneto moom it machine bii di fóot yi ñoo ko fi indi daanaka mu jar ay vingt cinq mille euros di di machine bii nga xam ne mooy fóot tapis loolu tamit liggéey la bu am solo boo xam ne tamit donte teewuñ fi bu ñuy soññee ci bi danañ ko fàttaliku naw leen ci duñ fàtte day daayira siin tuuba siin parasol yi ngeen gis ñoo ko fi indi mu amal njariñ lool ñiy julli si ci naaj wi loolu yëpp ay taxawaay la yoo xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa yi barab bi bàyyi nañ ko xel lool ñun dañ leen fee nekkal rek waaye ñi ngi bàyyi xel barab bi lool jàpp naa ne loolu su gënee yaatu te gën a nosu ni ko sëñ Maamoor doon ko waxee léegi dana yomb lool ci ñun fi ñu bëgg a àgg te te munuñ ko te am na lu bari nag loo xam ne jàpp nañ ne man nañ ko bu mooy teewee dana dana dana dana yéwénal mbir moo xam ne ñëpp ciy jariñu muy li taxoon a jóg sëriñ bi rek kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kilifay daayira bi ñëpp a teew sëriñ Afia moo jiite liggéey bi waaye secrétaire général baa ngi nii di sëriñ Abdou Lahad Bousso Moutalib sëriñ Abdou Lahad Maam Assa mi jiite commission sociale ak relation extérieure mi ngi nii di cordé na jataay bi seriñ Fallou Mbacke mi nga xam ne moo jiite commission organisation mboolem bagage yu ñëw ci loxoom lay nekk mi ngi fi ak ay artsem sëriñ Cheikh Abdou Diatara ñi mi ngi fi ak sëriñ Assane Beng mi nga xam ne moom mooy Euh, euh, Arsin moom mooy vice président commission culturelle mi ngi fi Serigne Amdi Mbàkke mii tamit bokk ci jëwriñu liggéey bi nekk foofu France dafa def liggéey bu am solo ci wàllu xam-xam mi ngi fi Serigne Abdou Lahad mu Serigne Afia mboolem addiye juy ñëw ci loxoom lay jaar mooy tontu lettre yi mi ngi fi ak Serigne Cheikhouna Mbàkke Serigne Cheikh Abdou buso ak Serigne Modou caam mi nga xam ne machine bii di fot tapis yi moo ko yor ak mboolem ñi ngeen fi gis ñoom ñëpp ci liggéey yi nga xam ne moo moo méngoog liggéey bi ngeen di indi ñoom ñëpp ñu leen ñi koy taxaw ñu ngi fii ngir safoo jataay bi te fonk kon li nga xam ne moo aju ci liggéeyu tàpp yi sëñ Mbàkke Njaay wax ko léegi jàpp naa ne su liggéey bi noppee ba ñuy jébbale tàpp yi kàddu yi nga xam ne moom la ci sëriñ bi war a war a jottali dana ko jottali lii dafa doon jataay boo xam ne jaadu na ab liggéey boo xam ne tàllal nañ ci loxo ñëpp sëriñ bi sàkku jataay bi ngir mu àndak ak yéen euh, teeru leen teral leen saafoonteeg yéen ngir sant leen ci jëf yi ngeen di def ba noppi tàllal leen loxo rek moo tax a jóg jotaay bi kon kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yi sant ak soññe moom kilifa gi moom la ñeel ñun ay jëwrinam lañ yoo xam ne xëy na ñu ngi ñuy coordonné loo liggéey bi euh, ci ndigalul bureau bi bureau bi du mu xadimatul xidma kon jaadu na yii yëpp ñu leeral ko rek daal jël kàddu yi jébbal ko ko mu sant ñaan ndax mooy jëwriñu liggéey bi kon sëriñ Afia bisimilah. auzu billaahi mina seytaani rajiim laa hawla wala quwwata illaa billaahi bisimillahi rahmaani rahim barkab seexul xadim tuubaali xabdin muridin saadiqin lahumo bi xidmatin aw bi hubin aw adiyaati barkab sëriñ Tuubaa lu mu jur lu mu gërëm barkab seex sëriñ Saar bokki taalibe yi bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu waa diaspora bépp nag ci tur nag mu xaddimaatul xidma bi nga xam ne moo fi nekk di jumaay seexal xadim ji kii wax nag Ibrahima Mbaye Diop la tudd jasaaka dëkk Touba Daaru Minam kër sëñ Madlaam sëtu bi Yaasal Bamba damay seere yi jëf joo xamee ni mënta ñàkk ñu wax ko ndax sëñ bu sa mu baax ma yàlla na yàlla dolli leeram sëñ Abdou Lahad mii toog na Assane Diop mii toog ci oromu oromu seexal xadim bi ñu indi fa ay maa ngi teew mën ni na ngeen ci góorgóorlu la sëñ Tuubaa waxoon sëñ fal rek jumaa ji sa eh, danaan coleet kon mu xadimaat xidma daan coleet ku dem mu dem ku demul mu dem foo leen bëgg mu yegg fa ngeen daal liggéey suñu nag na nga ci góorgóorlu baat boobee nag laay seere loolee nag tey jii wan nañu ne tey jii ndegam sëñ bi yàlla baaxee na ko moom jumaa ji mooy mooy ndigalam ak màggal gi sëñ ñun mu amuñu lu dul amul lu mu dégg sëñ tubaa nañ ci ngoy ci zaahir ak ci baatin ndax moo ñu yóbbu fu bëgg a yegg ndax sëñ bi amul lu may loolu lislaam dong nga ko ñoxoon ba ca des maa ngi dooleeti nag di sant sëñ bu Bousso mu baax mii mate na ko sëkk ci zaahir ak ci baatin ci liggéeyam ci ngoram ci diineem ci sellam ci yaatal ñëpp nag ji baax mu baax ma ànd nañ fa mu ni góorgóorluñ ci may Sëñ Tuubaa ji ku ku feeñ si nga feeñ waaye ku nëbbu si nga nëbboo loolee kaddu yu ma feeral Assane mi seere ko kon nag maa ngi ñaan ci barkeb Seexul Xadim nañ leen delluwaat laxasaayuwaat fas yéene ko futti ko liggéeyal Sëñ Tuubaa taxa nga àdduna laa xëy Sëñ Tuubaa ko yor sama koy joxee sa si jumaa ji la ne ak ci màggalam gi yàlla fi yàlla bàyyi Seex Boodu Muntaxa mu yàgg fi ñu yàgg ci moom sëñ Afe yal na sama boom dala guddal saw fan ak sa jaboot gi topp sa gannaaw say yàquñu da ñuy defar de jàmbaar ji de moom xam naa ci moom dara wéra dig mag nag bu duggee yu bari da ngay sox waaye waxtu maa yaa may jiite fajar yaa may jiite suba ci jumaa ji waaye ñu ngi ñaan ci barke sëñ Tuubaa ku fi ñëw di taalibe di liggéey sëñ Mbàmba ci jumaa ji Seexal Xadiim yal na nga gudd fan lool yal na nga wér lool yal na ngeen mucc yal ngeen am cent cinquante milliards yu ñu mën a liggéeyal sëñ Mbàmba ci barke sëñ Tuubaa barke sëñ Saaliw barke bay sëñ Tuubaa wasalaam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 واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخيركنا ولتجعلنا ساعة الامتلاه نورا ورحمة بلا انتهاء وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفني النكدي ولتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دهبا يقيم ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دهبا يقيم am na bis boo xam ne sama laxasaay laa takk ñu dugg ci biir kër yi fu ñu egg leeral leen liggéey bi ñu jox joxuñu seen addi ñu doog a génn jàll ci geneen kër loolu ma yéene nag ñoom ñëpp ñu am tawféex ndax xam naa bu ñu am danañ ci jëf waaw kon nag ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te ñu yàgg laa fekk fii di la indi liggéey bi waaw ñun moom man moom Moukhaddamatoul Khidma mooy sama mat waaw waaw te am naa ci nag waaw ndax ndax ndax sëñ Tuubaa jox na ma Moukhaddamatoul Khidma waaw ci ci lu wér ci lu wér Moukhaddamatoul Khidma bi ma waajee bay jàngi màggalu soxna jaara ne damaa bëgg Moukhaddamatoul Khidma téere bi fekk boobu am lu ma ci yëg nit dugg ci biir néegam jox ma ko te loolu yombut Europe ndax téere bi sax am nañu ko amut fii Moukhaddamatoul Khidma julli naa fajar it toog fi ma jullee fajar jàng Moukhaddamatoul Khidma ba mu jeex ma doog a fatu waaw kon te daje naa ci tawféex nag kon Moukhaddamatoul Khidma mooy sama mat maay seenu jàngkat <laughs> bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin wa ala alihi wa sahbi xadim ummati wa sallam taslima asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki taalibe yi ñu leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha xafisahu llahu wa raa ak ci suñ turu bopp ak ci turu mbooloo mi nga xam ni maa ngi ñoo ñoo bokk ma xam ne dafa bokk fii te Touba ñu ngi yëkkat suñ kàddu jotal suñ nuyoo bi gën a sell ak suñ ndokkeel gu gën a mat ak mbégte moo xam ne nag lot nañ ci tudd ko ci suñu làmmiñ muy mbégte mu réeréer ci jaraayu tey bii ndax jotaay la boo xam ne dañoo daje ak sunu mbokki taalibe te sëriñ bi rekk tax ñu daje muy jotaay boo xam ne jotaay bu ko bu ko ëpp solo amul ma yëg ci doo xam ne néew na bu ma ko yë du ma yëgee ci beneen jataay yàlla xam na ko kon nag mel ni man daanaka umu ci woon ay wax ndax li ma waroon wax yëpp mbokk yi wax nañ ko. ndax bokki cant kàddu cant laa war a yëkkati te yëg naa na lot naa ci kàddu cant laa war a yëkkati te yëg naa ne lot naa ci parce que dama koy bàyyi rek ci sama xol su borom moom xam na ko kàddu yi soññ itam laa ci waroon a teg waaye koo xam ne waxtu war ci sa kanam mu ngi dox kooku doo ko wax waaxu seen ndax moo war a jiitu te yéen ngi ci kanam kon. kàddu yi soññ itam jur moo di ko def ndax yéen ngi sama kanam di dox kon yéen moo jiitu kon du ma leen wax si leen du ma di wax rek doxal leen ba toog seen gannaaw jërë ngeen jëf jazakumullahu ngi tolloog nag li ñu seq dafay lu ñu mënti seddoo muy sëriñ bi ñu bokk di ko liggéeyal su borom may ni tawfeex ñu ko liggéeyalee fii ci barab bi nga xam ne moo gën ci barab yi jëm ju tedd ja nekk fi yàlla tawfeex ñu ko liggéeyal foofu te am na ci ñun ñoo xam ne day déggante rek ci téléphone am ñoo xam ne seen rek la dégg am ñoo xam ne gisante ci téléphone yi kon bu yàlla dogalee tey ñu daje ci màggal gi rafet nañ ñu daje benn place boo xam ne ñu bari ñu ñi doon déggante danañ gisante ñu bari ñu xamante wu doon xamante ndax li ñu séq daf koo jar daf koo mat muy liggéeyal sëriñ bi ndax lu ko ëpp doole andi defuñ ko ci àddina loo ko di liggéey sëriñ kon ñu xamante gisante xamante ku ne saafante sa morom loolu man mbégte moo ci am yaakaar naa mosuma am mbégte mu moom ah bi nag dafa mel ni liy njariñam mooy ku ci am xalaat boo xam ne xam dana rafetal doxin wi ma di ko yaatal mbaam di ko dëgëral nga génne ko ñu jariñoo ko dafa noonu rek mooy yoon jotaay bi ndax pas-pas yi moom rafet na yooyu ji rëy na sëñ bi rek tax a jóg du ne kon nag buñ dajee ku nekk xëy na xam nga loo xam ne si wala xamu ko ci loo xam ne dana rafetal doxin wi wala dana ko yaatal nga laaj ko bokk yi ñu waxtaane ci bu ko ci yoon dugal ñu doon ko ci loolu rek mooy wax ji sama kàddu nag foofu laa ko yemale ndax ku ne xam ne ne sama xol fees na kàddu yi nim ko waxee xol bu sedd moo tax ni ko bëgg a yëkkatee mënu koo yëkkatee noonu jàpp naa ne loolu su ñaanee aajo yëpp dina faj incha allah loolu moom rafet nañ ci njort bu baax a baax kon it ni ko waxee kàddu yi cant la rek yoo xam ne maanaam fi mu koy tibbee yéene na lu ko ëpp mu ñëw ci yéen kon cant gi dafay mel ne liggéey bi seen bopp ngeen koy defal waaye doon giñ doon nekk fii nekkal leen fi dafay mel ne ñun ngeen koy defal kon nag loolu lu lu am solo la loo xam ne sëriñ bi wax na ko keroog bi waa Espagne di jébbale daf ne jumaa ji dafa mel ne soo ci gënee fës da lay gën a ñemele boppam ndax kenn ku nekk xam ne liggéey Moukhaddamatoul Khidma ci diaspora Espagne ñoo ci jiitu kon suñ demee ba jël moquette yi tapis yi nga xam ne musuñ koo joxub daayira musuñ koo santub daayira ñu sant ko fédération Espagne loola dafay am lu muy firndeel ne ko diw la boo xam ne wala diir tiir la boo xam ne noo ca ñëwee noonu nga cay taqe tey it du lu woyof jumaay suñ tubaa ji moquette ñu toog di julli nga nga def ci saw ñaq ah loolu mu moom musumaa gis lu mënumaa gis lu ko gën a doon tiyaaba kon ku ko yàlla taw feexale lu rëy rëy la loo xam ne wax dëgg yàlla li leen ko taw feexale ba tax suñ Seex Mamadul Muntaxaa ci xalaatu boppam mu ne waa Espagne ay jëwriñ lañ ñu am Pastef lañ xalaat jox leen ndigal ci tapis yi loola seen jëf la kon nag loolu sëñ Mbàkke war naa doon ak matt goo xam ne war naa tax liggéey bi gën a law ci biir daayira yi ci nekk Espagne ba nga xam ne saa su koor jotee wala màggal lii ñëw dana mën a yor année bépp ci wàllu entretien bi ci wàllu taxawaay yi nga xam ne mi ngi am bàq ya wala muy am ci matériel bi nga xam ne mooy mooy saytu liggéey bi doon nag liggéey bu diis boo xam ne daayira bi ñi ngi ko gàddu te loolu nag ñun ñoo ci jiitu membres yi liggéey ñoo ci jiitu ci seen i cotisation ci weer wu jot dafay am lu gàll ci suñ kaw loo xam ne dafay ëpp li ñu li ñuy cotiser maanaam amul benn weer boo xam ne dana am benn dërëm buy des ci keesu Moukhaddamatoul Khidma te fa suñ yéenee laaj yi kenn lenn lu dul taalibe Sëriñ Tuubaa yi rek loolu nag kon ñëpp a ko war a yëg loo xam ne liggéey la boo xam ne ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp kon sëriñ bi kàddu yii la waroon a wax waaye xolam bu sedd ak xolom bu fees ak cant gum sant ci jataay bi moo tax munu ko woon a génne nii kon mi ngi ciy sant bu baax di ci gërëm waaye di beraluk cant bu baax a baax sëriñ Mamour Mbacke mu Cheikh Amadou Mourtada liggéey bi bu bu demee ci diaspora bi wala bu yaatoo wax dëgg yàlla ci ab taxawaayam la loolu moom duñ ko faral di ñàkk wax mukk ci occasion buñ am ci wax waa diaspora bi ndax ci xalaatu boppam ci kàddu boppam moo woo Serigne Afia mii ñu wuyi ko këram kër Cheikh Amadou Mourtada mu ne dama bëgg ngeen boole maak ndaw ñu ànd ci tournée yi may def ci mboolem dayre yi ngeen leeral liggéeyu dayri Moukhaddamatoul Khidma ndax dëgg la joo xam ne dañ ko mënewu dañ koo wanewut ndax bëri na caaxaan yu ñu organisé yoo xam ne dafay nëbb dëgg yi ñu wanewut te seen liggéey bi day dëgg goo xam ne talib yi dañ ko dañ ko dañ koo yëgut loola moo waral bëri na dëkk yu liggéey bi tàbbi Europe yoo xam ne ci tournée boobu la la amee li nga xam ne daayira bi am na ci yéene te loolu mi ngi aju ci li muy yor ci keesam Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy secrétaire général bi di coordonné liggéey bi yëpp nee waxuma la li sëriñ aadi wax maanaam ñu wut corbia buy yóbbu néew yi waaye bokk na ci suñu yéene dañoo bëggoon képp ku ñu indi Touba la war ci yow ci wàllu taxawaay ñoo koy def maanaam maanaam ni màkka di def nga xam ne bu nit wàññi ko kii borom néew bi yoonam du ci nekk loola dafa bokk ci suñuy objectif te loola bis bu yàlla dogalee ñu am moyens yi incha allahu rabbi kenn du fi indi ko wàññiku sa benn dërëm di ci dem wala dara te ña fa nekk ñëpp di fa yëngu xam ngeen nañ ñu ñuy fay la ñu doon parce que seeni kër lañu bàyyi nekk loola nag ci suñ yéenee la bokk loolu lépp nag mi ngi aju ci loxol taalibe yi rek kon ñu ngi tàllal loxo ñëpp te jiitu ci nag ñun dem ci jumaa di bale wala nga dem fa di taxaw sàppe yi wala ngay def loolu téewul weer wu jotee nga génne sa ñaq joxe loolu nag kon moo tax du lenn kenn lépp ñëpp la te kon lu nay ku ne ci te sëriñ nag du jël jëfi kenn wala sunu borom du jël jëfi kenn di ko jox kenn wa an laysa lil insaani ila ma shaa wa anna sahyu sawfa yura loolu moom mooy li kon nag nañ bàyyi xel li ñu sëriñ bi defal ñu ñu delloo ko njukkal te mooy fas yéene gàddu ci ak matt kenn ku nekk ñun nag jumaa ji mooy suñu mat te yéen it mooy seenu matt te xam nañ ne matt yi ngeen gàddu bari na kon su ngeen ko ci boolee xam nañ loolu xam nañ liggéey jëwrin yi liggéey yi nekk ci seen i los ni mu diise ak war-war yi nekk ci ñoom kon su fekkee bàyyi nañ ci xel jumaa ji ba lii am wax dëgg yàlla loolu mun mënuñ leen cee ñàkk a sant loolu moom xam nañ ko bu wóor a wóor xam nañ li ngeen gàddu kon ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex ak taysiir te teñ teewee ko na ngeen déwén incha allah te buñ ñëwee déwén bu ñuy def bilan ñu xam ne liggéey bi yokk na bu baax a baax a baax ci asalaamaaleykum wa rahmatullah